salaamaaleykum yow ngi siifru sunu sécurité dalal ak jàmm si vidéo bu bees bi ginnaaw bi nga xamante ne ñetti semaine ñi ni defuñu benn vidéo dinañ continuer vidéo yi ak benn jumtukaay bu ama am solo bu fekkee ne li ñu wax lépp kenn du ko wax ci téléphone léegi-léegi day soxla woo nga dajee ki nga xamante ne moom ngay waxal pour wax ko ko wóolu woo téléphone bi wala fi nga koy awee pour keneen di ko digloog yooyu noonu noonu la amee tamit ci li nga xam te moom lañ bëgg a partagé moo xam ci ay programme la moo xam ci ay données la wala yeneen ak jeneen moo xam euh, dangaa nekk ci benn réew boo xamante ne li ngay partagé moo xam danga ko bëgg a jàllale ci beneen nit wala ci ab groupe bëggoo ñu koy surveiller wala loo def rek jàpp nga ne ne yow euh, xëy na am na ñu nekk si ginnaaw di ko xool ak yooyu noonu moo tax indi na leen benn programme bu am am solo boo xamante ne dañuy may ñu mën a partager moo xam ay programme la moo xam ay données la wala loo xamante ne bëggoo ko awale lu mel ni ay Google ay Dropbox yooyu noonu mu nekk benn programme boo xamante ne dalay may ba partager li ngay partager rawatina lu jëm si wàllu ñi def euh, nga nekk benn journal euh, journaliste wala ñu mel ne ñoom xamante ne dañ soxlawoo euh, lu lu leen di aar comme genre programme yi day baax si ñoom. boo ko utiliser da nga mën a partager li ngay partager ci yoon woo xamante ne bu am sécurité la euh, ba pare day nekk lu anonyme ku ku defoon nañ benn vidéo ci Tor browser euh, comme ni nga ko gisee woon si Tiles mën ngaa utiliser Tiles operating system boobu euh, moo gën foofu utiliser noonu Tor ci kaw machine noonu rek rawatina boo ko utiliser nag foo xamante ne comme wifi public la dangay def li ngay def rocc sa kale continuer say activité Euh, programme bi boo koy utiliser moom day basé wu ci euh, réseau Tor pour mën a partager li ngay partager wala récupérer li ngay bëgg a récupérer ci yoon woo xamante ne day am sécurité ci yoon woo xamante ne tamit euh, anonymité day am ci biir bu nee anonymité lu ñu si jublu mooy comme si internet kan moo def activité bi ñu ne xamuñu kan moo ko def loolu lañ jublu ci loolu ñu ngi lay ñaan nga abonné sunu chaîne bi partage vidéo yi ngir ñeneen jariñu si li ngay njëkk a def mooy télécharger Tor sa ndax danga koy soxla moo xam pour envoyé walla wala euh, rek moo tax wone woon na nan lañ koy télécharger même yoon woowu ngay aw aw rek télécharger ko installé ko ci sa machine même jumtukaay bi tamit booy utiliser lu mel ne Cubes Eh, tayal su operating système yooyu yëpp da nga ko fay fekk xamante ne dañ ko cee liggéeyaale bu dee da ko bëgg télécharge sa machine eh, ubbil ca navigateur nga dem def eh, union share dot org nii ngay def télécharge sa tour bu réseau bi ba pare nga def entrée boo ñëwee fii nii da ngay gis ne pass bi ngay gis boo wàccee dinaan la lu jëm sa eh, confidentialité li ngay partagé moo xam eh, bëgg ko awale lu mel ne ay Google ay Dropbox wala dafa nekk eh, document lu jëm si texte lu jëm si wàllu médical wala ay gëstu yoo xam sax partagé gun ko nga bëgg ko awale ci keneen jàllale ko ci keneen te kenn du dox si diggante bi nan ngay def li ngay téléchargé boo ñëwee am nga ñett muy bi si njëkk muy Windows Windows bi boo si bësee nii automatique da ngay gis ne euh, da ngay def enregistré mu commencé wàcc bu ñëwee nga installé ko ni nga koy installé yomb na lool boo ko ubbee da ngay def suivant ba mu jeex après nga ñëw si menu démarrer bi nekk fii bu ñëwut si bureau bi daal di recherché Onion euh, Share mhm. pour gis ko nga daal koy ubbee bu dee Macintosh noonu bu dee Linux tamit mën nga ko installé moo xam boo defee learn more mën ko installé moo xam utiliser snap wala nga utiliser Flatpak boo ñëwee euh, bu dee da ko bëgg a utiliser utiliser Flatpak pour installé ko bësal fii bu dee snap bu dee yor nga ko comme ay ubuntu mën ngaa def snap tirer install euh, daal def euh, maanaam tirer espace daal def espace def union sar wala nga dugg fii nii. Euh, installer ko bu dee Flatpak bi commande yi ngay dugal ci suuf pour euh, installer ko kon jàpp naa ne installer nga ko ba pare mu toll nii defoon nañ benn formation pour euh, lépp lu jëm si ay install programme ak yenn programme yeeg yooyu noonu pour fun jëmati duñ sonn moo tax jàpp naa ne installer nga ko ba pare télécharge nga ko ba pare installer ko naa ko ubbi yow ni nga koy ubbee xëy na man mën nañoo wute ndax yow man ngaa ñëw si menu demande bi fii ba recherche bi nga bind boo ko gisul sa bureau bi nga bind onion share bu dee si Linux bi mën naa def nii onion share euh, bés entrée bi pour mu ubbil ma ko nii lay mel bu ñëwee yaa ngi gis ne bu ubbee ko automatique wax naa la Tor brose bi dañ koy soxla mën nga koo installer bu ñëwee automatique bu ubbeekoo nii lay mel nga gis benn tab fii nii gis fii lu mel ni benn paramètre nga bës fii boo bësee fii da ngay gis ne danaal ndax da ngay utiliser toor bi nga xamante ne moom leen liggéeyaale ak union server bi mën koo bàyyi noonu bu la neexee bu la neexee mën ngaa ubbee toor browser bi boo ko ubbee comme nii bi naa ko nii lay mel nga bàyyi ko ba mu connecté wu su connecté nga euh, def euh, atteinte mooy mu jéem ko connecté ak Euh, navigateur bi automatique bu la neexee bu dee Linux tamit mën ngaa def euh, connect ak poor yi nga ubbi ko po nga bàyyi port yi nii presque port bi lay utiliser ah, kon mën ngaa utiliser bi si kaw wala deuxième bi boo utiliser deuxième bi configuration bi navigateur bi yor moom lay yore ne ni bu la neexee mën ngaa ñëw ci préférence boo ñëwee ci euh, privacy si tor fii nii bu dee automatique la automatique nga koy bàyyi bu la neexee mën ngaa utiliser brise brise ñi koy soxlaa utiliser mooy euh, genre ñi nga xamante ne euh, dañuy euh, genre yi nga xamante ne dañuy nekk ci yeneen réew yi lu mel ne ay siin yu mel noonu xamante ne bëgg ñu ñu détecté ne toor la ñu utiliser yu demee noonu fii nii dina la indil ñett nga tànn ban nga si soxla mën ngaa tànn Mid Azure wala nga tànn Snowflake waaye bii mën nga koo tànn. bu dee comme da ngaa nekk ci yenn réew yi euh, def ko connecté automatique bu dee da tànn bi ci kaw ngay gis ni même configuration bi la lay laaj fii nga tànn nga soxla tànn boo ko soxlaa def test dee tor bi laa jël mën naa def tor def test xool ba xam connexion bi nan lay demee fii nii da lay wax yëpp di la war a indil turu mu defee test yëpp normal nga def enregistré boo defee enregistré euh, da ngay gis ne kon euh, comme dafa testé nii mu ne la support nangam client authentification yooyu yëpp normal na li nga xam ne ngaa jël bi si kaw def nii def euh, save wala test nga bàyyi ko mu def test bi fii mooy fi nga réglé configuration bi fi mën ngaa tànn langue bi la neex fi mën ngaa tànn thème bi ba ñuul ak weex ak yu deme noonu fii dañ koy bàyyi ba mu àgg cent pour cent nga gis ne normal na nga def enregistré pour jàll su enregistré woo am nga ñaar fi am na ay yeneen xeet waaye ñun yii moom soxal benn bi mooy nga partagé boo partagé dara envoyé ki nga koy envoyé mu télécharge ko beneen bi mooy eh, nga créé benn lien envoyé ko kenn xam te lien boobu lay utiliser lu mu envoyé foofu automatique day wàcc sa machine bi euh, automatique nga xaar ko mu télécharge ko automatique boo bëggee partagé bi ngay def partagé bii nii. soo ñëwee ngaa def ajouté bu ajouté mu indi la euh, tableau bi nga tànn yan xeeti fichier la xaaral ma euh, indi fichier bi ma bëgg a lii laa bëgg a bii nii ima nga bës si euh, ajouter bi boo bësee ajouter mu indi la tableau bi nga tànn fichier bi wala nga jàpp nii rek xëcc mu ñëw fii cliquer déliser <laughs> bu ñëwee fii nag fichier bi moo nekk nii fii nga ne ko eh, bu moo ko envoyé waa ji bam télécharge ko rek automatique eh, lien bi nga xam ne moom la partagé ñu mën a télécharge ko na ko stoppé na ko arrêté bu la bu dee naa bëgg ñu bëri télécharge ko mën nga ko eh, décoché bu la neexee bu la neexee mën ngaa enregistré tab bi saa si woo ubbee union soor bi boo xamante ne même kii bi mooy affiché tableau bi bu la neexee fii mën ngaa def mu désactiver Euh, private key bi xam naa da nga gis euh, lu am solo la mën nga ko bàyyi noonu bu la neexee ndax léeg-léegi nga bëgg comme bu ma partagé dara ki koy téléchargé am na beneen code bi nga koy laaj comme sama private key code boobu noonu su ma ko envoyé moo may moom laa mën a confirmer ne ki ma ko envoyé moom moo ko téléchargé bu dul loolu xamoo kan ak kan moo ko téléchargé bu la neexee mën ngaa def euh, fii nii kii avancé bi nga jox ko titre bu la neexee fii nii mën ngaa def li ngay partagé euh, kañ la koy démarré nit ñi mën see parta mën ko jël comme lien bi ban heure laa jooy noonu mën nga koo régler fii bu la neexee nga def kañ lay commencé ak kañ la euh, canal bi nga xam ne ubbi na ko ñu mën koo kii kañ lay jeex soxla ko kon jël leen ñaari après damay partagé. xamante ne yoon wi mu koy awee da ngay xam ne yoon tool la automatique di lay jox benn lien. lien bii nii moom ngay copier envoyé ko ki nga koy envoyé fii mooy copier wala nga def ko QR code euh, ay ma copier boo koy envoyé nag mën ngaa utiliser yenn programme yi nga xamante ne jàpp na ne lu am sécurité la pour envoyer lu mel ne signal euh, session ak yeneen ak yeneen wala loo xamante ne crypté nañ ko nga envoyé ko xamante boo ko envoyé bi la nga xam ne nga bi xamante ne signal yoon wu wóor a wóor lay doon boo ko envoyé ba mu si moom moom ni muy def lan lay def day ubbi euh, navigateur am Tor bu xam li koy am bu dugal lien bi nii def entrée su entrée damay laaj benn euh, lu mel ne benn code fii lu may def benn authentication fii nii code bii nii moo nekk nii mooy private key bi xam ne fi mu doon laaj na désactivé ko boo ko désactivé ku ñëw rek day téléchargé mën naa koo copier tamit envoyé ko par moo xam signal application bi wala yeneen application yi nga xam ne yu wóor la pour envoyer xam ne envoy naa la lien bi ak code bi bu la nee xamante ngaa gis code bi bu ma defee reveal nii gis ko envoyé naa ko soo defee nii doon doon euh, dugal code bi dafa doon nii nga gis ne boo xaaree tuuti dinaa ko mën a télécharge gis nga li ma ko envoyé moo nekk nii xamante si Tor bi la koy jël réseau Tor euh, da ngay ñëw def téléchargement rek automatique mu commencé téléchargé wu nga xam ne noonu mën nga see awee envoyé li ngay envoyé ci yoonu wóor ba pare xamante ne mën ngaa euh, def heure wala date bi nga xam ne bu après canal bi jeex wala nga def ko stop sharing fii partager bi jeex yooyu yëpp ay yoon la yoo xamante ne mën ngaa mën ngaa partager tamit lu ëpp benn kii bu ñëwee nga télécharge ko comme fii si zip mën naa ëpp fii beneen tab bu dee ngaa bëgg a mm, partager xamante ne ki lay envoyé tamit mën naa aw ci weneen yoon wi def nii envoyé la lien bi nga dugg ci yow mën ngaa def euh, ne man damaa bëgg ñu envoyé ma ne ko li may li may envoyé bu ñëwee automatique ñu dugg fii nii fii muy Union Star dossier bi nii xam te mën ngaa def browser tànn dossier bi la neex def yenn configuration yi fii heure beeg yooyu noonu yëpp mën nga koo def fii configuration bu la neex mën nga koo tànn fii def start mooy démarrer nga xaar mu démarrer benn serveur ñu jox la benn lien te lien bi ak code bi moom ngay envoyé waa ji comme bu doon yow maa ngay envoyé dara comme lii code bi tamit nga xool si yoonu ndax lii mu bu dee da koo defar ba pare envoyé ko ci yoonu amul sécurité amul solo kon moo nga awale ko feneen ñoo yam su ma defee nii xam te lien bi man maa ko créé envoyé la ko yow loo fa dugal rek automatique li nga xam ne moom laa ko joxoon muy euh, na ko bu ñëwee ne dugg foofu noonu yow loo dugal automatique day télécharge wu di ñëw sama machine gis nga tableau bi ni mel mën naa def browser tànn dossier bi mu bëgg a envoyé su ma ko envoyé def euh, submit muy envoyé automatique euh, kii bi nga xam ne moom laa ko jox muy fii nii fii lay téléchargé kon am nañ benn yoon bu am sécurité pour boo bëggee envoyé li ngay envoyé ci document wala leneen man ngaa aw yoon wi ni utiliser Tor browser ak Onion Sar pour def ko kon lii moo nekkoon vidéo bi chaque seen yéen abonné suñu seen YouTube bi te partage ko ngir ñeneen njëriñu si euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa